sëriñ Mountakha ñëw ci mairie bi wane bëgg-bëggam bëgg boobu mu amoon nag yàlla fekk si nañu ci tey loolu di ndamul Mbàkke gépp ak bépp taalibe Sëriñ Tuubaa te di gën a mbir Sëriñ Tuubaa amul hasard fii Sëriñ Tuubaa ko moom te moo ko jëlaat même club olympique bi fi jaaroon sax yàlla dafa dogal kayit gi ñu amoon sax ndekk du kayitu fii kayitu feneen la kon sëñ Touba mi moomoon fii moo ñëw jëlaat ko dénkaat ko marché Ibrahima mu liggéey ko kon maa ngi soññi sama bopp di soññi mbokk taalib bi yëpp mm-hmm. ñu gën farlu nag ci liggéey sëñ Touba bi. est-ce que mën bi la demee ba euh, mbir mi aboutir lu simple la. wax ma ci làmmiñam ne ma ne bu ma sañoon ñu dakkal fa football ñu def délibération municipal yàlla dogal même suñu mbokk yi waxoon ñoo ko moom sax ndeke moomuñu ko feneen lañ moom ñu wéyal délibération boobu ak service technique yi jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ci turu Serigne Touba kon xam fii tey Serigne Touba mi dëkkoon moom ko diggante bi kenn dëkkaata fi kenn moomaatu ko moom rek moo ñëw moom jëlaat yi fa. kon tey tey yan action la ñuy xaar si euh, mairie bi pour accompagner projet bi. li njëkk mooy délibération fexe ba mu nekk ci turu Serigne Touba ànd ko service technique yi ak le représentant de l' état muy du gouvernement muy le bi loolu jàllee jël nañu cent tonnes tàmbalee ko liggéey bi. dëgg la. te 100 yi duñ ci yem. danañ ànd ak sëriñ bi liggéey bi ba keroog ko sëriñ Touba gi taxaw ñu song beneen beneen bi ci des it ñu jël lu mat 20 tonnes pour armée lii jàkkaarloo ko sëriñ Touba gi ñu miire ko taaral ko suturaal ñi fi nekk bi loolu amee it avant loolu ñëw nañ gis nañ ne Baye Fall yi dañuy liggéey guddeeg bëccëg éclairage bi fi nekkoon baaxul seen borom sa far ñëw jël ko. ñu jëm indi ay poto indi ay gis ngeen ko ay 2000 watts 2000 watts fois 8 donc muy 16000 watts dana mën a éclairer bërëb bi ñu mën a liggéey guddeeg bëccëg te loolu noonu la ñuy ñoom ba keroog Sëriñ Touba yi taxaw. Euh, ku wax Serigne Touba wax Cheikh Ibrahima Fall euh, euh, bi ko si loxol maam Cheikh Ibrahima Fall ba ko déggee nan la la def. ñun maam Cheikh suñu royukaay la ñun ay Baye Fall lañ suñu xol. waaw ndax ki ñuy booleeg Serigne Touba muy Serigne Abdou Mbacke borom dër bi dafa tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall doom mu làq mu denc ci biir këram mosoo gis sopp nit tuddee ko doom mu làq ko denc ci biir këram comme sama maam bii waajur sama waajur bu jigéen moom ma ko def kon cofeel yi ku tedd koo ko amoon mu Cheikh Abdoulahi Mbacke borom daara xoon ni ñu booleeg Serigne Touba ci maam Cheikh Ibrahima Fall ñun moom la ñuy dund moo tax nag lépp lu maam Cheikh laal te xam ko dañ fexe ba kenn du